kan da koy saaga jërëjëf jërëjëf merci beaucoup bu dee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi Abdoulaye ñu jël ko salaamaaleykum waaleykum ah, salaam ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar bu baax waaw maa ngi si benn kër faafa wéli waaw ah, ana waa foofu waaw ñu ngi fi ñu ngi si jàmm baax alhamdulilah waaw seen nooru ñun ñu ngi rafetlu président pacte bi nga xam ne moom la tegg ci wàllu gerte gi hmm. waaw parce que ñun béykat yi yàgg na booba léegi ñu tàcc ñu gerte mënuñ koo jaay hmm. waaw xëy na bu teggee taxi yooyu sinon dinañ dugg si. Hmm. te gars yi di bàyyi di wax naan ku jël sa gerte jaay ko ci euh, deux cent vingt cinq yow la neex. Hmm. te loolu dafa neexul soxla toog gor mënul xëy saa su nekk mu dem tàllal loxoom di lekk wala muy defi leneen. Hmm. li mu am rek moom la mën a jëfandikoo. kon yaakaar naa ku ci jël sa gerte di ko jaay ci deux cent vingt cinq yàlla xam na ne àndoo si ak sa sago. da ngay toll foo xamante ni. waaw day metti foog nga jaay ko. waaw day metti ñaare ba tegu ci may wax ci wàllu bourse familiale yi. léegi hmm. nag man bu ma sañoon bu ko ne état bi mu xoolaat doxalin bi quoi. parce hmm. que euh, man mënuma d'accord euh, bourse familiale nga jël ko lu tollu cinq ans ñu koy jox kenn nit te mënu cee yaay si dara. Hmm. man bu ma sañoon état bi day jéem a euh, maanaam organiser affaire yi commune bu nekk la fay fayeeku ci bourse familiale la xam nañ ko. tey par exemple buñ kenn ku nekk buñ la ubbiloon compte bancaire. diiru deux ans ñaari ñi jël li nga xamante ni moom nga fa am ñi koy wer sa compte bancaire bu ñu demee deux cent yooyu ñu videel la ko jox la ko yaakaar naa di nga ci mën a réaliser leneen. Euh, après ñi jëlaat ñeneen yaakaar naa bu ñu continuer noonu balaa yàgg kenn ku nekk dina am euh, jéem a am doole boppam mais. bourse hmm. familiale chaque euh, deux mois ñu jox la ko. Hmm. yow daanaka mënoo ci réaliser dara. parce que hmm. ñi ngi koy jox ñëpp mënoo ci mënoo ci jàkkaarloo kenn xam ne kii nii soppeeku na ci dara. yaakaar naa deux ans yi bu ñu ku ñu jox kenn ku nekk au moins da nga ci am départ boo mm-hmm. xamante ni yaakaar naa am loo ci def réalisé dara mu ngoog waaw euh, te ñi jëf ñi ñi leen di jaajëfal saa su nekk rek ñoo bokk ñoo bokk lépp euh, liggéey groupe Futurs Médias di leen wax jërë ngeen jëf ñoo bokk lépp sëñ bi bu dee am na kenn Abdoulaye am na kenn salaamaaleykum waaleykum salaam ñu lay ziar rajo bi nga wàññi ko kooku man la Ngor Sarr guy Ndiogu Ngor Sarr ana waa guy Ndiogu Ngomsaar Ngomsaar. Ngomsaar waaw. yow taa dag ma bàyyi de naqari ngaa jot de ñeenti semaine damaa dugg ba sonn mais dara jalul. waa xam nga rek par force te xam naa day métti. <laughs> waaw dëgg la dëgg la ñëpp a soxla. dëgg la dëgg la soxlaa moom dara du yomb. dëgg la mu ne dañu ngi jub ci élection dafa mel ni. violence bi ñu war kaa moyu. Mhm. mais gis dafa am bopp am mm-hmm. jiit. Mm-hmm. violence bi nag muy commencé daanaka ci ñi nga xam ñoo ñooy ponkal yi. parce que man amna luma na lu ma seetlu bambe loo xam ne rafetlu ma ko mm-hmm. man gom saar guy njóog am naa rajo -hmm. ki nga mom la bokal euh, euh langue gi amul -hmm. buñ ko invité ci sama radio bobu xeyna na li muy déroulé du ma -hmm. parce que dafa am ko ay dañ ko invité fo ci benn radio man du ma tudd -hmm. buñ ko invité ci radio bi mom amul benn ndombo tank bawol mais am na loo xam ne jot na kaa def bawol mu mel ni lu kur mu mel ni lu demee ni courant ak ndox ak yu demee noonu mm-hmm. bi ne booy déroulé lool ci rajo boobu borom rajo bi ci boobu moo directeur bi mm-hmm. na ko émission boobu bu mu egg mais en fait parce que campagne tam commencé gul xam nga moom laa fi tere parfois bu amee ñu ñu yëkkati ay kàddu ci antenne bi di wax moo tax ma leen di couper waaw dëgg la voilà mais noonu la demee après ci lañ dagg émission bi daal kon mm. loolu mën naa cee pare mais damaa gis ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye mm. su doon damaa dëkk Linguère moom laay vooteel mais malheureusement bool la bàyyi loolu tamit ngir yàlla Ngom Sarr nañ non Bougane dafaa ñëw mu def geste bu rafet loolu waaw d'accord loolu loolu loolu tàmbaleegul campagne tàmbaleegul dégg ngeen en tout cas yow daal dañ koy sóoraale te xam ne waaw d'accord ñëpp daal mooy loolu waaw merci jërëjëf merci beaucoup <laughs> dafa daal mel ni Abdoulaye yëf yi daal dafa xaw a doy waar dañu dàq seen gën a waxal seen soxla nañ ko moytu nag ngir yàlla salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay ziar Ibra Ndiaye Pikine Gannaaw moo ni di nuyu ana waa Pikine ngi fi di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah di siyaare Sëriñ Abdou Karim Mbacké ak Cheikh Mouhamed Rafahi Mbacké di rafetlu itam xutbaam yi muy def ci moom Cheikh mm-hmm. eh, gërëm nag rajo bi mm-hmm. di gërëm ñi fi liggéey mm-hmm. ndax yéen nit ñi lañ jox de sen kàddu ci yeen mhm. la nit ñi mëna am accès ba jot ñu mhm. di ñu defal ay teranga ci tour radio bi mhm. ndax da ray ko ki barki dem ci ñaan gi soxna bu ñu wax meer ñanga ci an mari dafa fexé di laaj sama numéro ba jot ko jox ma ciép ak suukar do li ma yobul ci dara ja muy lu ma ni soxna jee mbàkke yoon ni ma ñaar fukki saako ceeb ne ma yobul yóbbulaalee ma ko ci dara ja muy lu ma rafet sa gannaaw yalla dégg ma nit ñi dégg ci yeen la Moustapha Niass jox ma merci de sorti plein ba mu fees teel ak essence ne ma kon oto bobu na la yóbbu aller retour kon loolu teraanga joo xam ne ju rëy la te daara lañ ko defal te ku defal daara man jàpp naa ne defal nga mooy islam bi yëpp hmm. ñaan nag ñu dimbali ñuy jàng xaroon ak ñi koy jàngale rawatina daara yi kokki hmm. ñoo ngi beroon gërëm na ko so Aliou Sall jërë ngeen jëf hmm. jërëjëf jërëjëf bi bu dem na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko Abdoulaye allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay ziar bu baax Seydou Alaaji Xaas Mbay la Mbàkke Bawol ana Mbàkke Bawol waa ñu ngi jaar baax baax a baax ay lay dund commune bu Malem de moom département bu Malem. Mhm. li ñu fay jooy forage bëri na trop. waaw mhm. am na ci gars yoo xam ne daal woo nañ ma ne mam dëkk yoo xam ne gars yi ñëw nañ fa indil leen këyit ni leen signé leen dañ leen indi forage ba tey ba fi may yow nii. Mhm. te ku ne xam ne ne ndox moom dafa baax ci doomu aadama. nee ma dëkk bi gën a jege bi ñuy root rek sept kilomètres la. kon jàpp naa ne moom buñ ko gaa yi déggee gaa yi fàll ndox moom. war nañ leen dimbale bu baax a baax a baax. te xam naa jar parce que dama naa sëñ ci Mor Ndaw. am na forage ba pare woon toog na ñetti at forage ba taaluñu ko immigré nañ ko ñetti at bàyyi ko doon tàkku. waaw loolu yàgg na de. Hmm. waaw loolu dafa yàgg de tey jii li may wax na moom li ma ëpp li ma solo li may wax. Hmm. mooy dox ak huile yi nga xam ne ñoo nekk fii ci sama dëkk bi muy Mbacke Bool. Hmm. Touba Guiré xam naa fi lu ma deux cent unités yoo xam ne ñaar téeméer unité. yoo xam ne ki ci gën a néewle emploi dina emploi dix personnes ci suba gi dix personnes ci ngoon muy vingt personnes. weeru jot lu mu gàtt gàtt kenn ku ne da fay cent cinquante mille. kon te benn usine bi ci gën ndaw. lu segal kattan hmm. kon jàpp naa ne Sonacos gerte gi ñu yor fekkee ne ñoom bëgg nañoo dimbale population bi rawatina waa Touba comme amul usine amuñu dara hmm. nañu wax gerte gi ñu segal ko nit ñi mën cee jariñu mën cee liggéey hmm. mais boo jëndee gerte bàyyi ko feet day saxe wala mu xuur wala mu yàqu loolu du njëriñu kenn dañ leen woon subventionné subventionné tu leen léegi tey tey gerte gi am nañ leen ko jox ñoom ñu segal ko nit ñi mën cee jariñoo ñaan ci mi jàmm di leen ndokkeel baax a baax jërëjëf jërëjëf sëñ bi bu dem na ki naan du la ñu wel waxtaan wi ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 am na keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ziar. Seydou maa maa ngi lay ziar di la ñaanal yàlla. alhamdulilah. Seydou man ci directement ci mbay mi affaire campagne gerte gi laa bëgg a waxtaane bu mu mayee tuuti. vraiment di rafetlu man la Oumar Sow Fuladu man mm. damay rafet lu vraiment teg eh, eh, eh, taxe importation bi ñu ci wàññi. Mm. léegi nag wax dëgg yàlla chinois yi nañ dem ci àll ba na fii ci Fuladu gerte am na fi am pagaay gaay ñëw jënd ko fii ci wax dëgg yàlla Sonacos mu ngi doon jënd mais juróom fukk la doon jëndee. Mm. te ñun Sonacos kii chinois yi ñoo mun a moo mun a jàppale béykat yi état bi def na lu ne nag ci te yëpp état la. te il faut ñu xam ne chinois état bi bu leen libéré yoon bu leen jox autorisation bu ñu jël il faut nit ñu ràññale ci état état mu ngi def ci ci mu ngi fépp laa la wax euh, am na benn doléance boo xam ne dinaa ko jot Seydou Nourou Ba mooy suma yoon mooy diggante Sibéré ak Kolda commencé nañ ko liggéey wax dëgg ñu ngi koy rafetlu autorité yi fi nekk laa la def nañ li ñu si laa la mais ñu ngi ñaan vraiment di ko fàttaliku wax le ministre des infrastructures monsieur Mansour Faye koy yoon boobu noonu laal dafa manque ay latéraux ñu ngi hmm. koy ñaan ces services compétents yi fi nekk au niveau du Fuladu nañ jàppale ci latéraux si te am na bon volonté yi fi nekk laal def nañ laal mais yoon bi des na dafa manque ay latéraux. Hmm. Mansour Fay nag en tant que ministre des infrastructures et des euh, et des désenclavement Mansour Faye ñu ngi koy ñaan képp ko dégg sama kàddu bi na ko jëttil man la Oumar Sow fii si Kolda yoonu ci beere Kolda. commencé nañ ko liggéey mais dafa manqué ay lettres manqué dafa lu mu si mën la def la merci merci merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup. abdoulay bu dem nak na ko ku nekkat ci li ñu jël ko salam alaykum wa alaykum salam Cheikh bi. ñu ngi lay ziar sëñ bi. yaa ngi am jam jàmm. ma sha allah. man de li may joxe moy alerte au niveau de Saint-Louis. -hmm. région de Saint-Louis arrondissement de Raw commune de Ndiébène Gandiol. -hmm. ñoo ngi gars yi ñoo ngi am ay coowal suuf yu fa am mais coowal yi jëmul kaw. ñu hmm. nekk dañuy alerter autorité yi bu ñu yaakaaree ni fi mu toll nii avant élection yi dëgg la avant élection la nekk. Hmm. gars yi mën nañ fa kenn bëggul wax gendarmerie lu ñaaw wala préfet lu ñaaw wala gouverneur lu ñaaw. Hmm. mais commune Ndiobène Gandiol xam na ni fi mu toll nii coowal suuf am na ko. mais yëpp dëgg nañ ci seen tànk. waaw waaw dëgg nañ seen mais ala kulli xaal au niveau de village bi ñuy wax Mumbaay bu dee ñëw ñuy dégg. Mhm. xam na ni am na njuuj njaaj suuf bu fa am. Mhm. te ñoom fi ñu toll jàpp na ni réglé nañ ko mais tôt ou tard fii ak un an wala deux ans coow li foog mu am. kon nañ ci gaaw réglé ko mu gën waaw leerul. Mhm. te bëgguñu di wax benn autorité lu ñaaw. waaw bu dee coow loolu nag dégg nañ ko. bee boo ñu réglé ko autorité yi nag moom la ñuy waxal. amuñu wax ak conseil municipal bi. waaw loolu doo nga leen doon alerté xam na ni fii ak élection mm. duñ ci wax mais àla kulli xaal fii ak deux ans un an yaakaar na ni réglé wuñ ko mais réglé wuñ ko mm. te buñ ko réglé wul mën na jur leneen ak leneen mm-hmm. waaw bu dee ñoo ngi ñuy dégg nag au niveau de village bi ñuy wax Mumbaay la Mumbaay d'accord waaw jërëjëf jërëjëf sëñ bi merci am na kan Abdoulaye asalaamaaleykum aleykum salaam ngi lay ziar sëñ bi Idi Nuuru waaw alay ziar bu baax delloo ziar bu baax Ousmane Kala Medina Bamboul. waaw naa Medina Bamboul ñu ngi si jàmm. ñu si jàmm baax a baax a baax. ay bisimilah. la ziare di la jot li ziare Matka Darou Salam Ñantank ak Sekka bu Sangal Kam. maa ngi ziare ñu lay bàyyi xel bu baax la. jërëjëf. Euh, man fi may àdduwaat. Hmm. mooy suñu zone bi fii problème réseau. Hmm. Euh, Seydou ñun fii problème réseau téléphone def ñuy xaw jafe fii torop. Hmm. te boobu ba léegi ñu koy jooy te fajiwul te en tant que fajiwul duñ ko bàyyi di jooy ndaxte looy ñaxtu te defuluñ ko ko munoo noppi. Hmm. te Sénégal tamit dafa bindoo loo xamante ne loo waxul day mel na gars yi dañ koy mel na lu koy xaw a fàtte wala duñ ci bàyyi xel. Hmm. Euh, ñun problème rek fii zone yi fi jege yëpp dañu am problème pour woote téléphone. Hmm. waxuma la nag pour connecté wala yu demee noonu moom yooyu moom ci gën a metti trop. ñaan ñi jiite wàllu téléphone bi nañu nañu gës ñi ci àll bi surtout fii ci Médina Bangoul moo ci commune bu Affé am na village yu bari ñu fiy wër te amuñ dañu am problème réseau hmm. muy yi ñi fi nekk ñëpp na ñun bàyyiwuñ kenn duñ tudd kii di bàyyi kii ku ci mënta ñëw defal ñu réseau ñun liñ la koy santé bu baax a baax ndaxte dañ koo soxla jërëjëf jërëjëf waay merci beaucoup Seydi Ka merci beaucoup bu dee am na kenn Abdoulaye ñu wel waxtaan wi am na kenn salaamaaleykum الو السلام عليكم دا ملني دا فا مجدم بودي امول كينن ني وخا تاخذ توتي نعم نكن السلام عليكم وي oui, يلو السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا بابا سي مورنا ابو بكر انا ام بكر waa Mbacke Baara ñu ngi fi ak suñu tali boobu ñëwoon jàmbat rek. Ah. ñun daal rappel boobu la ñu am ak poste de santé bi. Hmm. loolu daal wax dëgg yàlla ñu ñaan ministre de la santé bi parce que ñëwoon na fii. Hmm. surtout seen journaliste boobu nga xam ne mooy mooy mooy conseil am foofu. Hmm. ndaw si soo nekkoon RFM mi ngi foofu. ma di ko ñaan moom sama jigéen boobu. mu waxal ma ministre bi. Ngone Ngom. pour mu waxal ma ministre bi ne ko waa commune rurale bi Thiamène may mun a mbay. problème mu na ñëw dimbali ñu ci suñu hôpital bi. nekk fii. ak euh, parce que fii trente mille franc ngay yónnee ñu horaire bi door a kii bi door a ñëw jël si la moom yàgg yàgg nga ko jooytu moom loolu bëri de te moom digoon nañu fii trente mille dañ ñëpp amuñu ko moom digoon hmm. nañu ambulance de hmm. ma di ko ñaar mu ñëw dimbali seen fii ci commune rurale bi Thiamène hmm. may mun a béy fii may terminé tamit Touba Mbacké laa jeexale parce que euh, Seydou Nourou Touba Mbacké avant màggal gi ba léegi nit ñaa ngi ci ndox mi ah. te loolu def naa ne man lu ma wax ci rajo ku ma tàggee sa baay nga ñàkk a baay. Mm. diggante euh, Touba Mbacke. Mm. yëpp ndox ma ba léegi ndox maa nga fa. te dama déggal sa sa sa son France mu ne ay milliards def nañ ko ci. Mm. ma di ko laaj kan la jox milliards yi. président nun dañ lay laaj kan nga jox milliards yi tubaa Mbacke ñuy defar fii. ci diggante Mbacke ak Touba nga xam ne diggante Mbacke Touba daanaka mën nga faa fanaan. nga dugg biir Touba Mbacke bala ngaa génn wutale Daara Jolof. mën nga faa fanaan nga jógee Kébémer pour dugg ci Touba. Euh, quartier soxna foofu ñu tuddee soxna may hmm. parce que ji mu woo ba nga xam ne ndox ma ñu naan rek yow Seydou hmm. ndox mi waatu waa Mbacke di naan mais xorom kese la Seydou Nourou hmm. xorom kese la am na ci jigéen wér ñoo xam ne dañu dañu mu jàkk tere leen ndox mi ak góor ñoo xam ne sax dañoo tere ndox mi ndax wex gu mu wex muy mag ñi kon nañu ñëw dimbali si daal nun daal euh, Seydou àll bi daal yéen Dakar daal yéen a ngi gunaanaat waaye àll bi boo ci duggee da nga xam ndax dox na wala dox Ndakaaru Njaay gii tamit ah? waaw am na fu waa waa c'est vrai que àll ga gën a métti wax dëgg yàlla àll ga gën a métti moom buñ ko bu ñu waxee te moom métti na moom franchement ba fu mu mënti yem waaw nañ ci gaaw nag wax dëgg yàlla yàlla baax na jërëjëf jërëjëf Abdoulaye dégg nga de waa àll gi ñu ngi jooytu rek kon nañu def dara boog metti na mu dem na keneen salaamaaleykum waaw maaleykum salaam ñu ngi lay ziar delloo bu baax a baax sëñ bi man maa ngi tudd Mankeur Wade. Mhm. Pape Mankeur Wade. Mhm. Euh, dëkk commune bu Mbane. ana waa Mbane Saint-Louis da waaye ñu ngi si jàmm. alhamdulilah bisimilah. Euh, jamono ji may wax ak yow nag maa ngi Dakar. Mhm. Euh, waaye dama am loo xamante ni chaque année rek dama koy gis. mu nekk naqar boo xamante ni nii métti na trop ci baykatu commune de Mbane yi. ñoo xamante ni chaque année période bii la ñuy commencé seen campagne mais dañuy am toujours problème mu ndox. baykat yi tout le temps ñu ngi dugg ñoom ñooy duggal seen bopp ci biir ndox mi di yett di di di dagg mbarax mi di ko génnee mm-hmm. ci faa bi en fait di ko dagg di ko génnee ci canal yi pour mm-hmm. mën a am ndox bu ñu mën a euh, irriguer seen ay tool mm-hmm. mu nekk métit boo xamante ni commune de Mbane dañ koy dund jafe-jafe jafe-jafe la si baykatu commune de Mbane yi te loolu autorités yi xam nañ ko euh, ñëpp xam nañ ko mais dañ leen si dul taxawu ñuy ñaan nag ñëpp ñi nga xamante ni nii am nañ ci am nañ ci ndogal ñu jàppale baykat yooyu sonn nañ trop heure bu ñu bayee seen soble duñ ko mën a jaay mais aussi balaa ñu koy bay rek difficulté bu ñuy am pour arroser pour am ndox ñu ni commune de Mbane nekk na ci euh, lac de guerre bi yaakaar naa loolu kenn ignoré wu ko. Mm-hmm. mais ñu am jafe-jafe ndox même ndox bu ñu naan aussi euh, dans la commune dafa am dëkk yom te nii dañuy am jafe-jafe boobu. Mm-hmm. tey boo demee ba dëkk bu mel ni Saare Laamu ci biir commune de Mbane la nekk. Mm-hmm. dëkk boobu noonu pour ñu am ndox dañuy xëcc teen ba sonn. Mhm. nga nekk ci ci mën nañ ni nga loolu la ñuy wax nga dëkk ci biir ndox mi te mënoo naan ndox. Mhm. waaw dëkk ci biir ndox mi te mënoo sangu. Mhm. loolu moo xew commune de Mbane. beneen jafe-jafe bi nekk jafe-jafe yoon. commune de Mbane commune de Mbane dañuy bay bay la ñuy dundee ñun ñi ñëpp ñëw lañu jàng ci dakaar mais bay bi la ñuy ba ñu màgg. mais tey si tey suñu parents way suñu wayjur yi li ñuy dund métti na trop. Mm. pour ñu bay génnee ko sax si biir commune bi c'est tout à fait un problème. Mm. amuñu yoon yu baax c'est commune la bu enclavé wu. Mm. beneen bi mooy dañu am commune commune la boo xamante ni ay société ñu nga fa. tey mën naa ni am na ñaari société yu mag yoo xamante ni ñu nga fa. pour ne pas les nommer aussi damay wax ni rek société lañu yoo xamante ne nii tey. Hmm. waroon nañu mën a jàppale emploi jeunes yi. ndaw ñii quoi ña fa ne ndaw hmm. ñi. Hmm. waroon nañ leen mën a jàppale. mu ngook sëñ bi. mais commune de Mba commune de Mbane boo fa duggee tey jeunes yu bëri ñu ngi Mauritanie di liggéey yi jeunes yu bëri ñu ngi Dakar. mu nekk lu metti loo xamante ni tey ñun jeunesse bi dañ koy dund. àll bi daal dafa mel ne daal ku ci woote rek nga yaakaar ne moo gën a metti la na. metti na trop metti na trop sëñ bi mu ngoog ñàkkul aussi ñu waaw mi ngi noonu xam naa ne daal war nañ ci taxaw bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, jàppale jeunesse bi mais aussi jàppale baykat yi surtout baykat yi sonn nañ trop. Mhm. sonn nañ lool. Mhm. jërëjëf commune de Mbane. jërëjëf man loolu maa ngi jaajëfal ñëpp. merci beaucoup di nuyu waa Mbane yëpp Abdoulaye bu dee am na keneen ku nekkat ci ligne bi ñu jël ko wala ñu xaat tuuti wala am na ñu xaat tuuti waaw. asalaamaaleykum. ça va bien. seen maa bu baax. ma di nuyu baax baax. man la Ousseynou Kolda. ana waa Kolda. ngi si jàmm alhamdulilah. alhamdulilah. di jiital mawla nasir. amiin amiin. vraiment mhm. man commencé si wàllu ndox bi. Mhm. ñu fii Fuladu. Mhm. depuis village bu commune de Bignona bi mm. depuis temps Ablaye Wade boo léegi château bi mënul fexe